mbokk yi gannaaw bu ñu sante sunu boroom mi nga xam ne moo terale xeet wii di xeeti yonent bi sallallahu alayhi wa sallama teraanga joo xam ne musu koo teral kenn te duutu ko teral kenn teral ga mooy dafa dogal ci seen diggante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 wala bok sa su waree digle digle ku top janam wàcc ké janam wàcc ku top janam wàcc na moom mi war digle mu dess ka wara a digle ka wara jëfe ji digal la kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkari wa tuminuna billah bok yi waru garu digle ak tere moy rëdd di dox digënté dig dëgg dëgg ab julit ak naafeq bok yi dëgg dëgg ak julit moy julit yi faaw ñu am ku leen tënk koo xam ne kii day jiitu kii topp ca koo ko toppat ca keneen koo ko toppat ca keneen ba bañuy ñuy àgg ca fam yam yem kookee ñuy yam nag waru garam mooy su gisee lu ñu wërta def mooy leen lagg leen defi ko su gisee lu ñu war a bàyyi mooy leen bàyyi leen ko alquran la wal muminuuna wal baaduhum awliyaau baad يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله waaye nee na nag ca des nga xam seen benn tànk mi ngi diine benn ba génn na ba ñu ngay mépp ba ca des yan nañ ca musal di def loo xam dara ñoru leen ca su naree mett ñu ñu ne gaa dem leen mooy ak ni fàq nee kenn yilifut kenn dañoo lëngu rek dañoo lëngoo rek di dem daal di gëm loolu ne lëngoo neex na waaye koo bàyyi mu dem ak boppam koo bàyyi mu dem ak boppam musiba dal ko al munaafiquuna wal munaafiqaatu baaduhum min baad kenn yilifut kenn dañoo ànd yi dem rek ku bëgg a jàdd jàdd yamuruuna bil munkari wa yanhawna anil maaruf mooy kenn ku nekk day seet la neex la moroomam bëgg a dégg rek mu di ko dégtal kese di moytu meram di moytu lu ko naqari loolu dug jullit jullit saa bu ko dee wax dëgg day wax dëgg rek ku jël baax na ku jël jaaram bàcc moo ne digleeg tere de moo fa daa indi yonent yi alayhimu salaatu wassalaam gannaaw ba gaa yu baax ya topp ca bu ñu demee ci alxuraan danañ ca fekk yonent yi bari di wax ak seen waa kër am na wa ilaa aadin axaahum huudaa قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره نينا كني وخ يونت الله هودنا عليه السلام بامي وخك وا كرم يا داف لينا ديغل ني ويتال يالا تا جامكو بو ديغي مفهوم الشرط موي سولين ديغلي ني ويتال يالا تا جامكو كرنا لين ني ووتال يالا مروم اك جامو لنين لودو جامو loolu lañ ciy déggee kon digle na tere na donte tere ga fësut ci dendalewu ko rëkk-rëkk ak ndigal la waaye bu diglee rek safaan ba mooy lam tere moo fi indiwoon yonent yépp wa ila madyana axaahum shuaiban qaala yaa qawmi abudullaha ma lakum min ilahin gayru wa ila thamuda axaahum saalihan qaala yaa qawmi abudullaha ma lakum min ilahin gayru am na ci waroom xam-xam yi ñu ne juróom yi ñuy lim naan mooy ponk l'islam yi bu amoon bu koy juróom benneel mooy digleeg tere moo ne topp ndigal dimbale na ba tay ku newoon ci xat-xat génne ko ca waaye ñàkk a topp ndigal ñàkk ñàkk digleeg tere la bëgg wax génn na aw nit ñu newoon ci xat waaye musal na it ñoo xam ne dañoo ànd ak aw gaay di diig waaye moytu moo leen ca musal moytu tere bu ñu demee ci alxuraan ci fekk wala yansuranna allahu ma yansur sib laxat nee na woon in tansurullaha yansurukum kenn du ko firee boo dimbale yàlla mu dimbale la waaye da ngay wutal yàlla aw lay mu dimbale la ci misaal buy taw yàlla mënoon naa def ku ko soob buy taw doo tooy waaye dane ku bañ a tooy na dugg fenn rek seelu fa mu musal ko ca dafa ko sabab alladina in makkannahum fi l ardi aqamu lsalata wa aatawu zakata wa amaru bilmaaruf wa nahaw an il munkar nee na ñi nga xam ne mën nañ fa yàgg lool yàlla sampal leen fi boppam ñu mën fay nekk lu yàgg a yàgg a yàgg mooy ña nga xam ne ba leen yàlla digalee ne leen أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر dañ na ca coow wutaliku te fasu ñene de part nee na ñooñu galgal mënul leen dara téqatal mënul leen dara mbaal mënul leen dara ndax ki leen yan moo leen téeñal te mooy subhanahu wa taala nee na it aw nit a ngi ñoo xam ne bañ ne dee leen digle di tere dañoo day naagal ba mel na kere moom bokkatu ci an jayna alladina yanhawna an suu wa axadna alladina zalamu bi azabin baisin ñenn ñenn bi azabin biisin bi ma kaanu kon boog digle ak tere waru gar la woo xam ne kenn ku ne am na fa mu ca tollool waru gar nag soo ko déggee moom loo xam ne bu ko suñu borom tegee ab jaam bu defee amu amuk yool su defut am leneen lu dul ab yool loo xam ne du ko soxla yàlla nuñu ci yàlla musal yonent bi sallallahu alayhi bi mu koy gën a si daf ne xadis boobu Abu Saïd al-Khudri moo ko nettali nee na yonent bi sallallahu alayhi wa toog naa ma ak moom bis ma dégg mu wax ne yéen ñii kon nekk fa woon moom dong moo ko nettali waaye nekk fa moom man raa minkum ku bëtam tege ci njëkkare njëkkare may mun kar su amé katam na ko falang ak loxom mu dañ su fekke munu ko falang ak loxom ndax ad at katanam ak gucca nako ko nako na ko wax ci làmmiñam ñam li njëkkare la li jagut su fekke nag munut wax waxam amun wala kenn dégluwu ko moom na ko naqari tam bañ a bokk ña koy def rek nee na nag boobu bu ko ñëpp defee dara du jàkk mooy sama yoon nekku ci rek ku ne na sama yoon nekku ci rek man raa minkum munkaran falyughayyirhu yugayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaani fa in lam yastati fa bi qalbi nee wa dhalika adafu al iman amna benen rawaya bo wax ne fofu ku fa àgg desetul dara ci gëm lu toll ne fepp sal góof ku ne fofu fa su fa yéene jógee amatut ci gëm lu tol ne fepp sal goof yalla ñu jallu musa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne misal ko ci ak gaal gaal yi ni ñi di tukki dugg di tukki neena aw nit ak ni ñoo xamne dañoo sax ci li yalla digle buñ jakarlo ak ñi nga xamne dañoo sax ci li yalla téré te niwuñ leen li ngeen yalla yàlla wu ko yalla da koy bañ ne rek sama yoon nekku ci nee na day mel ne ñu dugg ci genn gaaw ñii ne sa kaw ñii nekk ci suuf ña ne ca kaw nag yor ndox yóbbaale woon nag ndox moom ndax la leen tax a yées ci kaw mooy foofe ñuy wax VIP ñi ci suuf nag ndox sa ñoroon ko si néew ba mu jeexee ñuy dem ca kaw di ñaane ba ña kaw ne leen dutuñu leen may ndox ñi ci suuf lañu xalaat ginnaaw jege nañ ndox mi fi la gën a bare mooy géej gi te ñoo bënn fii bën bën mu daw rek. ku nekk suuf dem ca waa kaw ne leen yéen a ngi seetaan loo xam ne du naan ñu ne ko lu mu mu ne ña suuf dañu ngay bënn gaal gi di root ña ca kaw ne ñun lu ci suñ yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee wàccut jàpp ci seen i ne leen li ngeen di def xamal leen li ñuy def la ca nekk ñoom ñëppay suuxandoo lu leer la moo kenn ku ci nekk am na fu ab tolluwaayam ci digle ak tere lu néew néew ku yor këram yor seen soxna ak ñaari tuut tànk na ko tàmbalee sa ñoom bu gisee ñu suubu mbedd moo xam ne du di def loo xam ne du na ne déet du ne su gisee loo xam ne war nañ koo def moo leen ay ca leen te jiitu ca nag tey wax ñoom lu leer ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ku ko defut it ëllëg gis bi da nga ko lay ak ñoom ndax kullukum raain wa kullukum masulun an raayati kon ku nekk bu mu déglu ku ko koy ku koy digal ak a tere ci yenn yi na tàmbalee fam ca ñam yilif délégué de quartier ba sës ca chef de quartier ba sës ca chef de village ba topp ca ñu toppante ko noonee kenn ku ci nekk am na ñu yilif ñoo xam moom la ñuy déglu sëñ bu mag bi nag bi mu ñuy leeralal ci am njàngale mu leer nañ muy jege lool te barkeel am na téeréem bu mu tuddee aljawharu nafis fi aqdi nasri al axdari rais dafa firi xadis boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne awwalul amri al islam wa amuduhu salaa noonu la tënk téere bi أول ما أوجبه الرحمن قطعا على المكلف الإيمان ثم معرفة ما يصلح به فرائض العين جميعا فانتبه li dikk gàllu ci loo su mu kàllaf mu mën a doon mooy mu gëm yàlla su gëmee yàlla ci ab xolam fas ko yéene jëfe ci ay cëram la muy jëfe ci ay cëram mooy dem day day dem jàngi ko ndax du ko def ci nii laa ko yëge nii la ma juboo kese lu ci ne dañ koo tënk ci nuñ ko war a defee muy tàmbali ak fi muy yem mu dem xam lu ci ko su ca jógee lu mu mas a def ci lu dul noona ba mu doon gun mu kallaf doonte mu tuub ko tuub gu rafet tuub nag niñ koy defee nee na mooy ku jogg ci aw xal gisu ko woon yàlla xam na ne kenn du ko ne teggil waaye it xel xalaatu di ko ca tegaat lay sat fenn fa xal ne ko mu de ko fa teg ne noonu la ñuy tuube di lim ba agsi ci waru garu digle ak tere bayit bayitu ñaar juróom fukk ak juróom-ñett ba juróom-ñaar fukk ca la ko leerale wa an yakuna amiran bir rushdi wa naahiyan li nusxatin an diddi mukallaf bu nekk bu defee la mbar def bokk na ca waru garam muy digle ak di tere ca ñam war a digal ak ñam war a tere te yàlla rek tax nag waaye nee na am na ay charte charte yooyu nag moo mat a déglu bu baax a baax a baax fukki bëyit ak yatt la waaye dañ koy tànn rek yaar ba yatt nee na kii waru garu digleeg tere gàllu ci aw loosam na dem jàngi xam-xam ba xàmmee maaruuf ak munkar ndax su leen xàmmee wut man naa tere loo xam ne ba mu koy tere bu ko teree la muy jur ci musiba dana bari wala mu digle loo xam ne la muy jur ci musiba dana bari ay an yakuna aliman bil munkari wa laysa mufdiyan li sharri nakbar mu xam xàmmee xam maaruf mooy lan li nga war a def ak li nga war a digle lu mu doon te jiitu ca te jiitu ca xam-xàmmee li ñu war a bàyyi te jiitu ca bàyyi ka bu ca nekkoon بكتاب موي وأن يكون قادرا ذو الأمر على الإزالة بغير نكري موي كوكو نقال أو لوسم وارو غارو ديك لكتر لمي ترين دون ليس مانا باي waye lamuy digle it na doon luñu man buur a ngi nii boo xam ne daa am ko ko doon yëjj di ko ñaawal daa yëkëti loxo yi fudd ba yax yépp ne roco coco co mu ne lu neex buur jël ba mu des lii de mu ne ko bu loxo yi wàccaat xam nga ne buur la muy tere ak la muy digle mënu suta lenn mënu suta ñàkk fudd mënu suta ñàkk yor ay loxo ndax noonu la ko yàlla bind yàlla daf ñu bind ñu yor suñu loxo yi ak di aj waaye su ne bu mu wàccaat digle na lu kenn dul man waaye su ne bu fi kenn fudd yi tere na lu kenn dul mën a def motax ki diglé digle diglé digle xamné Bukot bu ko teree ñu bu ko teree ñu bàyyi digle tere la xuma téré digle la bayyi leen digle la buy tere ne tere lees mën a bàyyi buy diglé ne digle lees mëna def néna na lamuy téré ak digle bu dé lu muy na ne fang buñ ko wër door ko gis bu mu doon lu ñuy wër door ko gis waye na doon lu ne fang lo xamné li kenn du ko won sama rom waaye kaay ma xool ba xam looy xeeñ kaay ñu làmb say jiba lu ci nekk nañ jëm sa kër nga won ma fa la fa nekk neen loolu dafa xaraam walam yajuz baxthun an alladi iktatam fi thawbihi aw fi dukanihi naam waaye aw fi yadihi aw bidaarihi maa bal kullu dha kaana xaraaman munia nee na loo lii muy bind nii mi ngi ko jëlee ci sarxaa boo xam ne ku ñuy wax Muhammad ibnu Muhammad Salim al Majlisi al Shingiti moo ko saraawoon al Axdari téere ba mu tuddee woon Minaxul Ali fi sharxi kitaabi al Axdari mooy bay doom mi wax ne anaytu fi ljawaazi wal wujubi fa haaka addaha ala tartibi ba agsi ci la ko jiitu mooy lakinahu lahu thalathatu شروط ذكرها في الشرح شيخنا المحيط daal ne nag li gën a mat a tey ci digleeg tere mooy ku tere da digle mat naa xamee waaye ku digle da ngaa tere moom boo nee déet moom boo waxu dara yi safaan ba nga digle waaye soo nee ay ci itam ngir bëgguñu def bu dut loo ràññee lool da nga tere sa fan ba wa alam wa alam bi anna al amra wa nahya jala baynahuma talaazumun taamala setantalal bu bax faman naha an ay shay'in qad jara fa innahu bi aksihi qad amara kon bok bi diglé tere do né waro gar ci kenn ku nek bu xasse ba am touti ab yan amna soxna am na boutique yor na sareet yor na bus na ko wóor ne bu fekkee ci loxoom la nekk rek war a goru digleeg tere ma nga ca loxoom bu kenn tux ci sama oto bi bu fi kenn xuloo bu fi kenn saaga ba noppi nag moom mu bàyyi ko buñ ko mas a gis mukk mu cay def benn sa yooyee léeg-léeg gis ko naa man sama kër di xaatal xaatar naan sama kër man kenn du fa def nangam kenn du fa nangam ca kaw te fekk léeg-léeg mu ne méeg ca biir te la ne te tax mu ne méeg ca biir luñ tere dong la fa nekk kooku mënut a tere kooku sëñ ta tere sëñ ta digle mënu ko kuy digle day jëkk a bàyyi lañuy ñuy tere day jëkk a bàyyi la ñuy tere wan ko gannaaw bu faw soog digle ci lañ jëm tam jiitu ca na ay ci la dem waaye suy tere it day jëkk a bàyyi ba ñëpp xam ne bàyyi ba noppi su bàyyi it mu wax leen lam leen tere lu mu leen di wàññi su ko xamee te yàlla tax te bokk yi nag ñu xam ne loo yilif yilif sa waa kër ak ñëw yi ma tudd yëpp taxul nag tere ga ngay tere te lislaam tere ko nga sañ a jël bant teg leen ko déedéet xanaa gone gu ko xamagul go xamne dang koy wan ni li may tere du ay caaxaan waye magum jëm mo xamne dana la bayina ko ba dem def la ko sobit señu ko len lumay may digle ko dong nga tare digle ko digal kep nga sañ ma ràññale nak baatu ku saña diglé digle ku saña tare ak kuy soñé ko xamne ne charte yi dajewut ci mom señ te digle señ te tare xamut xàmmewut señ te digle señ tare bawut wala jappul señ te digle señ tare man na soñé nak ci kum xamne bayyi nga la nga don def mun la waw gor wala ku ne ca la nga war a nekk mën la waw góor yàlla na defal dëgg ak topp te mosuñu seytaan nekk pakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin